ñu ngi ko jëmale sur l'affaire Ousmane Sonko euh, coow li bari na coobay si réew mi fan yëpp moom la laam-laamee li jëm si mbirum Ousmane Sonko kan mooy Ousmane Sonko mooy euh, opposant boo xam ni mi ngi jàkkaarloo Macky Sall euh, dañ ko tuumal da doon sàkku benn xale bu ñuy wax Adji Sarr mbir mi day gën di jéggi dayoo bi ñu ko convoqué ba léegi dem wuy ji devant la justice tey la xar tànku tubéyam ngir dem wuy ji mbir mi nag mi ngi tàmm 9h si suba mi ngi départ këram 9h si suba ba jamono ji benn waxtu moo jot lan moo indi euh, retardement boobu nga xam ne mooy waa DIC non waa GIGN gendarmerie nationale waa police dañu fagaru ngir aar ki xam nag moom mooy euh, karangi Ousmane Sonko euh, këram la ñu départ ba Mermoz route de Ouakam partout militants yi takku ñi ngi taxawal si bërëb bi pour mën a gunge Seydina Ousmane Sonko ñoom teewale fi muy taskatu xibaar yi mooy euh, ay ñoñom ay am di jàmmam tey nekkoon na mbir mu doy waar moom ñu ko convoqué neuf heures euh, set mu ngi ko déglu heure boobu ba benn waxtu loolu euh, nekk noonu ay jafe-jafe diggante Sonko ak takk day mooy la gendarmerie nationale ñoom dañu mujj renforcer ay dispositifs am na fa nag ñaari ñaari taskati xibaar yoo xam ne fa am gaañu gaañu métti métti métti euh, ñu fa teg ay loxo ay partisans Ousmane Sonko taskatu xibaar yi dégg ngeen tey en direct partout rajo yi télévision yi ba la presse écrite internet ñëpp teew nañ fa vivre en direct euh, cet événement d'Ousmane Sonko euh, Ousmane Sonko nag li ñu ko tuumal moom rek la engagé. mu nekk une affaire privée diggante ndaw soosu di Adji Sarr xam nga ni fan yëpp à travers les débats radio télévision ñëpp moom la ñuy lam euh, dans les médias te nag euh, diggante mun nañuy wax diggante midi 13h euh, ko teg loxo mooy waa GIGN fële ci Mermoz dañ fa bañ fa bàyyiwoon xam mooy takkadeer yi fa ay barrière bañ ay jàmmarloo diggante takkadeer yi ak militants yi joxe bi sax nag ay xeer xam mooy militants yi ak diggante takk der yi ñuy sànnante mais takk der yi dañ jël seen i disposition euh, yu mot sa pour mën a éviter yenn dérapage yi te rek nekkoon na suba su metti euh, diggante Ousmane Sonko ay partisans ak les forces de l'ordre euh, mu jëlañ ko teg loxo selon certaines teg nañ ko loxo Ousmane Sonko jamono ji nag ñu koy déglu fële te brigade de recherche bu gendarmerie bu Colobane bi nga xam nag Adji Sarr dafa déposé woon jamono fan yële passé euh, benn plainte xam nga Ousmane Sonko ba léegi wuy jul mais finalement tey dañu ne l'ordre euh, tourne à l'ordre public moom lañ ko jàppee jamono ji euh, woo askan bi ñu mën ko teew gunge ko fële ci palais de justice moom moom mooy ni tey jafe-jafe yi moo tax tey ma bamtuwaat ko xam mooy leader Ousmane Sonko la jëli Pastef jamono teg nañ ko loxo ñu ngi koy déglu actuellement brigade de recherche bu gendarmerie bu fa jógee nag war na leen wuy ji le juge d'instruction Mamadou Seck euh, euh, huitième cabinet huitième cabinet du juge d'instruction Mamadou Seck moom nag moo doon déglu jamono ji euh, Mamadou ki nga xam mooy Ousmane Sonko mbir mi nag dafa mujj ëlbatiku ñu teg ko loxo ñu naan comment comment dirais-je trouble à l'ordre public ah Ousmane Sonko jamono ji teg nañ ko loxo xam nga muy waa GIGN mën nañu wax ak Sénégal dëkku jàmm la xanaa ñu ñëwaat si sur la situation bi nga xam mooy coow si réew mi nañu ànd ak dal ànd ak yar bañ a tal euh, bañ a taktaal euh, ay alalu jàmbur euh, diggante Blaise Mermoz ba Blaise Diagne militants yi partout palais de justice nit ñaa ngi génn si mbedd yi pour mën a bu nga xam mooy leader du Pastef Ousmane Sonko nañu moytu yenn fitna yi te Sénégal dëkku jàmm la nañu bàyyi lu leader du Pastef mu dem wuy ji devant la justice bu fekkee dañ koy tuumal amul ñu bàyyi fi ñu koy tuumal il sera sous les mains de la justice mais li am solo bu ñu taal dëkk bi bu ñu taal alal jàmbur yi euh, bu ñu fee indi ay fitna ak ay gàllankoor tey daal loolu la ñu euh, amoon lu ñu tënk si bésu tey bi xam ne di war Sénégalais rek euh, ñu bàyyi justice def liggéeyam di walee confrères les journalistes ñu si travailler dans le professionnalisme dans l'éthique iradéontologie bu ñu ko defee du ñu benn problème kooku mooy euh, jàngatu bés bi euh, suivre l'affaire ko Sonko euh, tey suba diggante Mermoz ba xam tege loxo mooy de sous les yeux du GIGN et des forces de l'ordre Euh, mesdames et les ondes de votre télévision préférée, euh, Salam Vision. Euh, ce Il était 9h euh, jusqu'à 13h, imaginez-vous. Ousmane Sonko, il est du PASTEF, euh, devrait répondre euh, au cabinet euh, du juge numéro 7. Il, il, il, était question euh, d'être auditionné sur l'affaire Agissa qui, qui a porté plainte contre l'île du PASTEF pour un cas de viol. Et depuis ce jour, Ousmane Sonko n'a pas répondu à la loi ni à la justice. Et c'est finalement aujourd'hui euh, qui sera entendu euh, par la justice. Et vous savez très bien, euh, il y a eu beaucoup d'embouteillages ce matin à Dakar. La circulation était bloquée euh, en passant de Mermoz, sur la rue de Wakam, sur la Vélène, partout, les militants étaient engagés, motivés pour accompagner le leader Ousmane Sonko. Mais heureusement, il y avait la puissance des forces de l'ordre qui ont joué un rôle extrêmement important euh, pour éviter des dérapages et des couacs au niveau de la circulation. Euh, finalement, Sonko, euh, il était aux environs de, de, de, de 12 et quelques, euh, qu'il a été appréhendé et interpellé euh, par, les, par les hommes du GIGN qui l'ont taxé de, de, trouble à l'ordre public. Au moment je vous parle, les deux du PASSEF est actuellement euh, sous les mains de la gendarmerie de brigade de chasse de pour être auditionné euh, devant, euh, les, devant les gendarmes. Euh, c'est un appel que nous lançons aux Sénégalais. depuis ce matin, partout, les, les rues étaient inondées de manifestants, des, des élèves, des étudiants, pour accompagner euh, Ousmane Somé. Heureusement, le préfet de Dakar a été très vigilant euh, pour éviter le rassemblement. Euh, Corona oblige, c'est un appel que nous lançons aussi à certains confrères euh, d'aller dans la sérénité, dans le calme et dans le professionnalisme pour signaler aux téléspectateurs qu'il y a deux journalistes qui ont été euh, blessés. Euh, euh attention euh, à travers l'exercice de la fonction du journalisme. demandez aux Sénégalais d'éviter de casser les biens et des personnes. cette, éviter aussi ce qu'on appelle des dérapages éviter ce qu'on appelle des rassemblements euh, avec les forces de l'ordre. Ces forces sont là pour maintenir la paix et la sécurité dans ce pays. Euh, pour dire encore une de plus, Ousmane Sonko a été appréhendé par les gendarmes. Il est actuellement, il est entendu par la gendarmerie et la brigade de recherche de Colomane. Nous y reviendrons très prochainement dans nos prochaines euh, éditions, mesdames et messieurs, et à